ñu leen koy defalee saa su nekk rek di jaral ay ndaanaan waaye tamit di seq ñoom waxtaan wu ama am solo ba tax na tey ñu indeeti koo xamante ni Sénégal yi foog naa kenn dootu ko laajte ah, ndaxte li nga xamante ni mi ngi ciy yëngu bay na ci waaram ba ñëpp remarqué ko ci waaye non seulement bëgg ko ci lool lool muy ki nga xamante ni moom moo di Dabaye Baar Séré Alma Ndiaye te tey moom la ñu dara boroom kaay ma jaay la Dabaye nuyu naa la bàyyi la nga nuyu mbokk internet maa ngi lay fay faa di nuyu di nuyu waa Sénégal di nuyu euh, mbokk internet yëpp di leen jaajëfal di leen wax déwénati leen baal leen ma àq ma leen di baal yàlla nañ ko fekkee ay déwén yu bari. waaw macha allah merci jëng nga ni sañ nga yaayu rasul. ah merci boo ko waxee rek dëgg la <laughs> kontaan <laughs> alors euh, Dabaye nag tey dañuy ñëw ci li nga xamante ni moom moo di Kaama Jaala bi ginnaaw bi nga xamante ni ñëw nga Sénégal def ko fi waaye tamit jéggi nga frontière dem ba Abidjan def ko fa boobu ba léegi génnoo mais tey ñu am occasion jàkkaarloo yow ñu nga dëkkalaat ñu ci li nga xamante ni moom moo di Kaama Jaala bi foofu ci Abidjan la demee woon ak réussite bi nan la waaw euh, Fa merci beaucoup ci question bi ma Jaala nag euh, bi ñu doon dem Abidjan c'était pas facile ni ma koy waxee chaque jour metti woon na trop franchement. mais alhamdulilah bi nga xamante ne am na ndax ñun foogoon nañu sax ni kaay ma la bi du am. waaw parce que bëri woon na ay difficulté mais ñu sant yàlla bu baax bi nga xamee ni euh, am na ñu am ci nag réussite peut-être c'est pas à 100 pour cent mais comme jàll na ci jàmm rek te gis nañ ci sunu bopp ñu ciy sant yàlla. Mhm. alors ci biir gis nañ ci suñu bopp boobu dañuy dégg ay rumeurs yoo xamante ni biir gis nañ ci suñu bopp googu noonu dañuy bëgg nga leeral tuuti parce que dafa am ay nuances yoo xamante ne xaw na ci am parce que moo tax dañu ne moom moo di Abidjan bi dafa fiasco ni nga ni nga ko xaare du fi mën naa ne du fiasco sax parce que le fait comme li ma wax léegi rek mu am pour man c'est une réussite ma jóge Sénégal dem beneen dëkk def ko fa xëy na nag li ma ci doon xaar à cent pour cent amul te du chaque jour lay neex tamit àddina nag tey mu neex suba mu naqari du chaque jour lay neex def nañ ko fi Sénégal mu neex ñu defaat ko fi mu neex kon bu ñu génnee suñu réew dem defee ko fa pour man naqariwul mais expérience la ma jox. Mhm. alors différence su Sénégal fii nga jaay fi ak nga génn sa réew lan la. du benn parce que comme Sénégal ñun bu ñu fi nekkee nii doon ay jaaykat xam nga tey yow nekk nga sama xarit su ma la invité mën ngaa ñëw. mais Côte d'Ivoire amuñu fa xamel bu bari te tamit yombul woon comme ni ma la ko waxee parce que lu bari daf ñoo jafe woon parce que bu dee fii xam nga yéen médias yi xam nañ leen te fee xamuñu ñu donc dañ doon obligé di fay influenceurs yi di fay médias yi donc affaire bi c'était un peu lourd mais nag comme li ma koy wax rek am nañ ci réussite mooy maanaam affaire bi am na te am na ñu ci gis seen bopp nag. waaw parce que nag comme li may wax xam nga des fois nag nga def foire dafay am ay inconvénients inconvénients yi mooy tey mënoo ne da ngay dem Abidjan bëgg a jaayi ci foire bi bëgg xool benn robe bi nga xamante ne fii sénégalais sax bëgguñu ko nga bëgg koo tappal ay ay bouton defal ko euh, ivoirien yi ne da nga leen koy jaay à quarante mille ñi fa indi lu baax du question dara de damay wax nii ñi fa indi lu baax dëgg dañoo jaay ba doyal macha allah. tamit nag bu ñuy dem foire il faut ñu koy xoolaat parce que mënoo dem foire bëgg a yenu sa mbalitu boutique yëpp bëgg koo yóbbu bëgg a buux nit ñi foire boo koy dem certes que am nga ay yére yu des li ma wax rek booy dem foire am nga ay yére yu des yu yàgg mais génne ko lu doon jar 15000 nga jaayee ko 2500 wala 3000 loolu du la dikk dara certes mooy prix ba mu ko jëndee woon mais su fekkee dangaa bëgg dem foire defoo ay collection yu bees wala yóbbuwoo tamit lu bees nit ñi mën a gis lu nekk tendance kon doo jarle loolu tamit mu ngi ci da ciy jouer kon dafay am ñoo xamante ni dañuy yóbbu marchandise yoo xamante ni si maanaam du nekk loo xamante ni si lu ñu lu ñu war a jaay la ci ci foire. waaw parce que foire tamit dafa am lu ñu fa war a jaay au fait foire mënoo jël tamit yére buy jar wala tissu buy jar 1 million wala buy jar 500 mille yóbbu ko bëgg ko faa jaay foire pour wanteer la mais wanteer tamit teewul nga wanteer lu baax booy wanteer da ngay xool li nga xamante ne lii jaayaabul na nga jaay ko mais tamit bëgg dégg turu foire rek nga yanu. seen waa koñ lañ deseel ak seen waa dëkk lañ deseel yëpp nga bëgg koo indi ca foire ba ne danga koy jaay tamit nañu waxante dëgg day xaw a metti lu dëgg nit ñi dofuñu tamit aussi te dañoo bëgg lu baax te ivoiriens yi dañ bëgg lu baax man gis naa ñoo xam ne dañoo jaay ba kontaan ñoo ne moom franchement jaay naa mais am na ñoo xam ne tamit gisuñu seen bopp waaw te liñ yóbbu la te tamit foire yaa ngi dem dëkk nga bëgg a yenu ñaari dàmba mel ni ku jëm Mali di fa di fa dëkki nañ waxante dëgg tamit foire laaju loolu defal sa quelques valises xool li nga xam ne mën surtout dëkku jàmbur nga jëm xamoo loo fay fekk. amoo lay fekk ci aéroport yi mais il faut tamit nga wàññi say bagage xam nooy def xam nga loolu yëpp mu ngi ci woon ci biir. alors dañu gis li nga xamante ni moom moo di foire yi souvent dañuy def li nga xamante ni moom moo di parrainer wala marrainer gis nañu ko yow à tout moment dañuy gis say parrainer ak say parrain ak say marrain aussi tamit mu doon loo xamante ni si dañ ko nemmeeku lu bari mais affaire u parrain nag jur na jur na bi ci réew mi. loolu kaala nag parrain yi fi mu nii. dafa mel ni ci beneen cas lañ nekk donc man dama ci éclaircir li nga xamante ne mooy man sama wàll peut-être ki wax man nekkul sax ci sama wàll peut-être bu nekkoon ci sama wàll dinaa ko gën a mën a tontu ndax bu doon ministre de la femme moo génn wax wala commerce moo génn wax ne bu ma kenn ne bu boobaa man dinaa xam li ma koy tontu mais fi mu toll nii dama koy wax rek benn affaire ñoom dañu nekk ci nguur nekkatuñ ci opposition ñoom dañoo war a doxal ñun ñu topp seen ginnaaw liggéey donte nag du yomb mais pour man affaire parenage c'est autre chose du moom moo ko war a wax parce que moom kilifa la te réew mi nag ñàkk ñu ko ñu parrainé de si parce que Sénégal dafa am ay noble yu fi ne am na ay personnes yoo xam ne duñu ministre duñu député ce sont des personnes nobles te ku leen tuddee ñu wuy la ku leen tuddee ñu jàppale la ne yàqamtiwuñu kuy liggéey ba ñu def ci seen doole moo bëri Sénégal comme affaire de parrain man déjà parrainé wu ma pour nga jox ma xaalis man dama koy wax tout le temps les gens n'ont pas compris que ni mën nga ne tey jii euh, yow mi ma parrainer la faa nga nekk nit ku siiw comme tey ni ma ne soxna Baali sama quatrième édition maa ngi koy waaj soxna Baali laa ko dippee waat pourquoi soxna Baali laa ko dippee parce que nit ku baax la nit ku yiw la royukaay la soxna Baali boo ko tuddee sa yëf tey amaana moom su ñëwul yónnee la délégation délégation boobu muy yónni keneen daña ci topp te am na ñoo xam ne sa soxna Baali rek lañ bëgg tey boo wootee ci lu jëm ci soxna Baali dañuy bàyyi lépp lu ñuy def ñëw. parrain bi communication la lu nit ñi comprendre pour jaay sa bis la parce que ku def làmb tey boole ci ministre des sports boole ci keneen ak keneen. kooku dafa bëgg a jaay bësam tey boo gisee ministre bi moom ñëpp xam nañ ko am na ñeneen ñu topp ci ginnaawam. tey am na ñu ko bëgg. tey moom Birame Souleye bu ko nit bëggee. am na ñoo xamante ne buñ ko paree ne bis ñooñu war nañ koo mën a demal sans sax autant que moom mu jox leen autorisation. affaire de cofeel lañ ciy wut. parce que tey jii ñun communication lañ ko def. lu nit ñi comprendre dañ foog ne da ngay pare man pare ne naa benn député. ci sama foire passé mais député bi bi mu yónnee géwélam géwélam dafa ñëw taxaw wax bax bu rafet taxaw ci kaw foire bi ñëpp taxaw mu ne diw moo ma yónni. jox ma enveloppe jox la ko. mais pour pourtant nit ñi foog nañ ne enveloppe bi ay millions ci nekk te pourtant 25000 la ci ne. Ah, ah oui mille boobu bi ma ko ubbee. dama koo daaj ji muy 25000 ma jël 20000 jox ko géwél bi téye junni yi geste bi moo ma neex. parce que nit mën nga koo parrainer bu bañ laa faale. amul problème mais man su may parrainer samay nit c'est pour que ñu mën a ñëw andi mbooloo ñëw jënd ci parce que man foire laay def. boo ñëwee su ma la parrainer jox la sa parrainage tudd la bub su defal la euh, communiqué ñëpp xam la tey jii di nga am mbooloo boo xam ne dina ci topp ñëwaale. man pour moi c'est une communication man je parraine pas pour côté mais bu ma paree parrainer tamit ci côté mm, état bi. c'est parce que parfois bëgg naa ñu ñëw xool li sénégalais di def ndax am na sénégalais yoo xam ne ñoom xamuñu ne sax ñooñu ñu ngi dundu li ma waxoon daaw c'est que man ministre yële paase yu Macky Sall yi laa yaakaarul woon dara maa sama laaj ñii man xaaruma dara xam nga lu may xaar ku jàppale ñi ne sama ginnaaw. ndax man maa ngi liggéey maa ngi sant yàlla mais am na ci xale yoo xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw te tey un homme d'état mën naa ñëw fekk kenn benn cordonnier ci biir foir bi gis ko am nu mu ko jàppalee jox ko financement mais c'est quelque chose. loolu moo tax ñuy ne mais c'est pas que dañuy ne pour wut xaalis maa ngi gis xale yi des fois am ku ma bindu ne ma waaw parrainage jeex na fi marrainage jeex na fi mais attends. Ah, ah mais bien sûr mais au nom de quoi muy jeex. nee naa leen ñu baax ñi ñu ngi biir Sénégal des personnes nobles. du ñu ministre du ñu député xamuñu sax lu état di xeeñ te boo leen pare nee ñu wuy la. kon ñi nga xamante dañuy jàpp ni que ministre sortant yi dañu doon jàpp ci say affaire ku ci mel ne Amadou Ba tamit ñu ko doon dégg dafa nekkoon sa ginnaaw yu mel noonu. donc loolu dama ciy tontu man mosuma gis Amadou Ba xamuma ko xamuma doomam xamuma waa këram man Macky Sall laa bëgg yàlla moo def loolu. waaw dama bëgg Macky mais problème en est euh, kii bi jot na. Euh, élection yi jot na ku ne dangay wane foo féete ñu kaa ci si biir kër yi ka fooree après jeex na élection yi bi mu jeexee man tourné na la page man 22h laa félicité Diomaye. billaay wallaay taalaay. ah mais bien sûr parce que boo daanoo dangay xam ne daanu nga damaa nangu. xam ne ñun kat daanu nañ man Macky laa bëgg man je suis apolitique mais dama bëgg Macky Sall amul benn ministre am wala benn kenn ku ma mës a jàppale à part fay te Thérèse Faye bi ma ko marrainee daf ñoo dikk ay financement jotuñu ci donc boobu ci fin bi la tombeel parce que c'était août passé ñu ngi woowoon nañ ñu nag ba jël suñuy tur ak yépp xale yi plus de cinquante personnes ñu war leen financer mais jotuñu ci kon donc man xam nga nguuru Macky lekkuma ci dara aw ci dara te wutuma ko ci li ma doon wut mooy nañ fexee dimbali ñi ci sama ginnaaw donc ñiy toog di wax naan ministre yi dañ ma doon jàppale wala dara franchement mosuma am ministre bu ma ci jàppale man maa njëkk a def sorti leen ne bu Macky Sall bàyyee yéen a tax parce que liggéeyoo leen ay ministre Macky Sall maa leen njëkk a xas. sorti baa ngi fi boo leen defee vaar di ngeen ko gis. kon yoon dem bi xamante ni Macky dem na ko ba ñeen ñi di jooy di yanu seen loxo nekk na loo xam du la metti la comme ñoom. non metti na ma méttiwu ma tu sais pourquoi euh, lu ñu jëfee rek lañ fayeeku waaw dañu waroon di gestu nit ñi dugganteeg population bi wax naa ko fii daaw bi ma defee foire ba pare loolu moo leen yàqal Macky nit ku baax la liggéeykat la mais mun a feeñ ndax entourage am te entourage à chaque fois mooy yàqal nit. li may wax rek ñi fi toog nag dañ leen di ñaanal gunge leen ñu liggéey parce que ñëpp am nañ ci ñoom yaakaar ñun ñi sax am nañ ci ñoom yaakaar. parce que li ma def nii mooy élection pare na damay jóg liggéey mooy maanaam damay jàppale jomaay liggéey la woote kon ñun ñëpp nañ jóg liggéey du dëgg. kay ci biir jàppale jomaay googu noonu coow li barina ci toog muy dox. jàppale toog muy dox di yow yow yaa ko moom en tant que koo xamante ne nee nga da nga bëgg a jàppale jomaay nan nga man je vois que ni d'une part am na yenn yoo xam ne yabaate la parce que nga xool kuy liggéey nga bindal ko toog muy dox kooku loolu yabaate weesuwu ko man duma ci gis sama bopp parce que man ku ma xam-xam na ne ba ma dee dabbaay ba tey ndox jaay naa ko jaay promotion def lu ne kon man moowu toog muy dox bokk ma ci xëy na am na ñeneen ñu koy adressé mais man ku dugg sama page wala nga dugg sama mur bindu ko duma la tontu duma la saaga dama lay teg la ne le am naa ci droit mais ñi ñuy woowee bu dee influenceurs yi tax ñu naan toog muy dox influenceurs li ñuy liggéey ci réew mi di ko am xaalis gëm naa ne am na fonctionnaire yu fi nekk te amuñu ko man mën naa cee xam dara. influenceur yooyu du moins ci nga bokk. waaw ci laa bokk moo tax may wax loolu parce que tey yow nga am benn contrat ñu fay la weer 1 million 1 million 300 mais am na fonctionnaire yu ko amul am na ñuy liggéey ñoo xam ne ay fonctionnaire yoo xam ne 100000 francs la ñuy am tey man ma nga woo ma déplacement publicité benn vidéo bu ma la ko defal cent 150000 la kon du dugg ci samay plateforme soo bëggee ma am ak yow contrat danga may fay xaalis may liggéey ak yow. parce que man du ma jël sama sama visibilité di ko pasar pasaree maa yor samay marchandise yor sama boutique bëgg koo teg pour publicité la pour noonu kase du ma ko def donc influenceurs yi ñuy wax certes bu dee ci côté boucher wala côté ñaaxarañ loo ñoom ñëpp ay liggéey ku nekk am nga sa double liggéey boo xam ne yaa ngi koy def boucher bërki démb la ubbi fii restaurant am ñaaxarañ loo bu nekkul ci politique bi mu ngi ci waali sekk soit keneen woo ko vidéo vidéo déplacement am 200000 la donc kon bu dee dañu yaakaar ne ñooñu ñooy toog ñuy dox ñooñu toog wërsëg bu leen yàlla joxalum la nañ ko nangu man tey mën naa xamanteeg benn nit dem bureau mu jox ma euh, benn chèque ne ma maa la ko may loolu bénéfice la tax sa man maa ngi liggéey kooku li ma may noonu bénéfice la mais bu ñu jël loolu teg ci bët parce que affaire day après day am beneen tournure ndiru soxor te bu ñu soxorantee rek réew mi du dem te ñun ñëpp dañoo war a jàppalante ñu liggéey. ensemble ñii jël nañ réew mi yàllaa ko dogal nañ leen jàppale ñu liggéey ba keroog chose du contraire mais mu opposition bi tamit dafa teel maa ngi gis xale yi tamit parfois ñu génn wax ay affaire non mais non teel na teel na opposition xaaral sax ba nit ki def benn faay wala nara wala nga may ko 6 mois 1 na mais ci ci biir toog muy dox boobu noonu yemalewuñu ko ci influenceurs yi rek laal nañ sax oustaz ba ki nga xamante ne moom mooy oustaz Modou Fall sax génn di bu ñu demee ba ci nga xamante ne si diini ji sax moom moo di a jóg bëgg tontu rek di tontu waaye loolu waru ko sax tontu parce que je pense que ni toog muy dox bi dañ ko koy bindal mais moom ci boppam xam na ne toogul muy dox ndax moom bi muy nekk Italie di liggéey balaa muy ñëw Sénégal di di liggéey fii toogul muy dox kon bu doon maay moom duma ci sax tontu parce que bu ñu la nee dangay ngay toog muy dox te yow sett ka xam nga ne toogoo muy dox mais wërsëg bu la keneen may lu la Marème Faye may da nga koy wax lu baax man yow tey su ma ñëwee sa kër nga defal ma teraanga ah mais fu ma toog dinaa ne diw de defal na ma teraanga ci lu baax la bokk wala kon man pour man oustaz Modou Fall warul tontu loolu parce que moom moo mag loolu li ma wax léegi ci ministre bi am na yoo xamante ne kilifa bu la ko yàlla defee am na noo xam ne waratoo koo doxee wala balaa ngaa wax nga réfléchir ko tontunte ndax jamono boobu ñu toll bu ñu toll nii soo tontoo sax ñu jël say wax yu wëlbati ko ba dootoo ñemee wax réew mi neexatu waxee. donc man li ma koy ñaan rek mooy mu bàyyi lépp mu sedd te xam ne jaru ko ndax moom toogul muy dox. soo amul question ñu tëj politique bi dem ci. Ibrahima hmm? Diallo waaw waaw euh, ci kaay ma jaale bi sax man ci laay dugg ak moom ndax it dañuy seetlu à chaque fois Sénégal dañuy euh, nekk dëkk boo xamante ne ñu ci bëri tey ci jigéen euh, dañoo jàpp ni tey seen taar wala seen jëmm lépp lu ñu am rek moo leen ko war a may dabay nga nekk une fille boo xamante ne à l'âge de 18 nga ko yàgg wax ci nga daan jël say mensualité scolaire di ci jaayantu ngir mën a defal sa bopp tey boo toogee gis jigéen mu jàpp ni taaram jëmmam moo ko war a may na may li mu am ba yaakaar ci tukki yaakaar ci li nga xamante ne aussi moo di dawal naka ngay gisee yooyu lay jigéen ci biir Sénégal fii ak fi mi toll te aussi dañuy dégg ñu naan euh, jamono ji jigéen ñi ñoo gën a déterminé wu ci góor ñi liggéey. foofu laa doon bëgg a ñëw sax parce que man ndax gisati naa jigéen bu toog di xaar góor wala jigéen bi toog di xaar taaram pour man amatul. pour man ñëpp yeewu nañ. bu bu dee am na benn benn lay doon ci saa yi mais man jigéen ñii ma gis. ma ma boot leen ci sama ginnaaw plus de 500 femmes ñu nekk ci groupe bi franchement kenn toogu ci jigéen ña ñoo fa ëpp sax góor ñi pour man jamono ji jigéen ñee ëpp jom sax góor ñi boo xoolee ci kër yi ci côté fépp nag ñoo ëpp jom sax góor ñi dañuy xëy di daan seen doole suba ba ngoon jot amuñu réppi boo xoolee seen i statut da ngay xool 5 heures du matin gis ko yeewu pour dugal ay statut am julli doo ko tëddaat c'est parce que dafa nekk ci seen moyen léegi liggéey bi foofu la toll kaay ma jaay la 100 pour cent ñëpp xaaj bi yëpp sax laay ma ay ay ay jigéen lañ amul góor ñi bariwuñu fi bëri am na tuuti tuuti mais bariwul mais boo xoolee li tax ma gën di sawar da ngay gis koo xam ne jigéen la yor këram di jàppale jëkkëram yor ay doomam di nàmpal boo boo leen fekkee ci ci aéroport yi nga ne tey lañ ëpp jom soo leen fekkee marché nga ne tey lañ ëpp jom soo leen ñëwee fekk leen biir foire kaay ma jaay la nga ne tey lañ ëpp jom kon man loolu gëwuma ko ne mi ngi am ba tey fii ci réew mi bu amee tamit bëriwut ci li ma xalaat. mais ci biir loolu gis nañu li nga xamante ne moom moo di Kaay ma jaale jigéen ñi di ci ñëw di ci def loo xamante ni loolu moom moo di coow li parce que dañu jàpp ni coow moom mooy jaay waaw euh, man au bi dama foogoon sax dañ koy def buzz la woon bat buzz laa ko tegoon man à la laay doog a comprendre sax ni dëgg la parce que laajte naa ko ñu bëri man dama jàppoon ni dañuy def bat buzz mais après nag fin bi bi biñ leen convoqué ak yooyu noonu yëpp ci laa xam ne nag loolu kon dëgg la man li ma leen di conseil rek mooy maanaam bat buzz dëgg la mais parfois du am njariñ trop. xuloo bi tamit amul sens ñoom ñëpp bu ñu jàppantee benn la ñuy doon nañu àndandoo ñu liggéey euh, tàppe xol yi xam nga loolu surtout. tàppe xol yi parce que jamono bi loolu mooy problème bi xol yi te nit ñi dañoo xaw a fals doo xam ku ku baax ak ku ku ak doo ci xàmmee dara donc l'essentiel mooy looy def tamit defal te yàlla tax séentu ci retour suñu borom bañ a séentu retour nit ki nañ tàppe xol yi ñu jéem a àndandoo liggéey parce que jamono bi fii ñu toll nii caaxaan pour man jeex na li di wax caaxaan faaxe <laughs> ci politique boobu noonu balaa nga kaa te gis nañ première édition am mu marraine ki nga xamante ne mooy la première dame Marème fay Sall euh, gis nañ euh, régime bu bees bi ndax mën nañ xaar marraine <laughs> les deux dames. fii que ne marraine ak <laughs> pour man. loolu kii la rek commencement la rek ak jibi bi nii mais kenn bañul ku la marrainer li ma wax sànq kenn bañul ku la marrainer waaw sag la te sargal nit euh, nga bàyyi ñëpp romb ñëpp ñëw ne première dame laay sargal wala nga ñëw ne jomaay euh, laay sargal loolu mënul ñàkk fii Sénégal daf ci bokk ci suñuy culture xam nga ngéwél géeg yooyu noonu yëpp ñun lu ñu def faaw mu am lu ci rax parce que loolu lañ ñu mooñaale non mënul ñàkk non sargal bi moom ak tuddee yi loolu mënul ñàkk. ah deux dames yi xanaa fexe nu ma leen xamee rek. <laughs> jéem a collaborer ak ñoom. Ah, parce que ah. dégg naa yaa xamaguma leen nag. ah xale bu jigéen bi de moom kenn ki li mu sañse woon li nga sañse moom tey ji benn la dafa mel ni yaa ngi jaay. <laughs> non non xamuma ko nag franchement xawuma ko ñoom ñaar ñëpp ma leen donc comme Marème fay sax man xawuma ko woon mosuma ko gis peut-être dama amoon estime ci moom rek. mais xaw ma leen xaw ma ko mosuma ko gis mais nag ñaan nañ yàlla xamanteeg ñoom pourquoi pas waaw. alors nga nar a demaat ci beneen édition Kaay ma jaay la nar ko def foofu ca foire euh, ci préparation yi ak ci li nga nekk lan waaw instant bi maa ngi ci préparation yi d'ici xam naa demain ci week bi euh, affiche bi dina génn xale yi woote ci 77 690 07 07 foofu ñu ñu inscrire donc euh, def 4 jours yoo xam ne trois jours lañ defoon la fois passée mais cette fois-ci 4 jours lañu koy def yu saf sàpp ñu sargal nag sunu yaay sunu maam sunu xarit soxna Baale Muntaxa mi nga xamante ne nag ñëpp a ko bëgg donc moom la ñuy fas yéene delloo njukkal. ci foire bi incha allahu bi comme niñ ko defee woon si sees daaw. lan moo tax nga jëlaat soxna baali encore sargalaat ko maranewaat ko affaire yi. parce que dafa neexoon. <laughs> boobu waaw boobu dafa neexoon xam nga soxna si moom ay yëfam yombul. te xam nga bu la tegee loxo. sëriñ Touba maamam. kooku dañ koy sargal 10 éditions. du sax yam foofu mën nañ dem ba 100 éditions. Ah waaw parce que soxna baali moom sunu soxna Bally ñëpp la. te ku ñëw ci moom dangay bokk mu nekk na nit ku baax ku yaatu ooyofal ñu ko ma ciy jaa ma ko ciy jaajëfal. du nangu yenn yi waaye loo ko tegu mu tegu ko loo ko tegu antan na ko di ci gërëm tamit sama yaay na fi Nafissatou Diop moom mi nga xamante ne moo ma ciy dimbali ba nga xamante ne euh, lu ma soxla ci soxna baali ci moom laay jaar tam ñoom ñoom ñaar ñëpp daal nekk ay nit yu yiw nit ñu baax di ma teg ci yoon ma leen di jaajëfal bu baax. waaw ci édition boobu noonu daaw gis nañ euh, coow lu fi amoon sa digganteeg géwél yeeg bongo man yeeg yooyu noonu ren euh, mën nañ toog gisaat leen wala dañuy toogaat seen kër. non man xam nga man mosuma leen wax sax toog leen seen kër man li may wax mooy man ak géwél yi mënuñoo bañ a dem man sama jëkkër géwél neexul tey man su ma amee sama programme euh, dama lay woo su ma amee ngénte dama lay woo teral la su ma amee mariage dama lay woo teral la su ma amee sama dese. yàlla na yéex dese bu fi jaar sax bi sama papa euh, nelawee dama woo géwél yi ba ñu ñëw ma jox leen paas ci ñi ma ci xam xanaa kon man sekk naa ak ñoom teraanga waaye bu yàlla dogalee nag ma woote kaay ma jaay la nga war a ñëw jënd nga la ñëwal nag daagu nag. bongo déedéet man attaqué wu ma. ñëpp la boole wan sax de géwél yëpp la wax. man dama ne. bu géwél yi laa wax rek waxuma sax ay bongo maan ak nangam dama généraliser mais donc su loolu amee ñoom ñëpp samay nit lañ kon yaakaar naa war nañoo mën a ñëw sagal ma sagal ma bi mooy taxaw ca podium ba wax lu baax boo paree jënd parce que nit bu amee nitam muy def dara pour man danga ko ci war a jàppale mais pas lu koy yàqal parce que su fekkee yow da nga ñëw di wayaan ñiy jënd kon ñooñu du ñu mën a jënd ci ñi ñi participer te ñooñu dañuy génne seen xaalis participer indi seen i marchandise dem ay dëkk ak dëkk préparer ko su ñu ñëwee tamit teg seen i bagage la ñu war a jënd nga wayaan ko kon nan lay demee damay seetu bi waroon ñoom dañ ah, bien sûr ñoom dañ ma war a jàppale déggoo li ma wax ñoom bu ñu nekkee géwél man ma sekk ak yow teraanga man sama bis teraanga bi nga ma mën a fayee mooy nga ñëw jënd ku la nar a may sax nga ne ko déet indiw ma fi damaa ñëw rek pour gis la ngay sama géer ma war laa wax lu baax ma wax la ko donc ñoom ñoo ma mën a defaral bis bi mais pas ñu ma koy yàqal parce que nag nit ñu baax ñi ci réew mi dañuy bëgg a génn ñëw ci foire bi parce que dañuy bëgg nam ambiance xam nga dajaloo dafa neex ambiance bi te foire bi day am ambiance ba mu neex mais dañ koy bëgg a dund mais dañuy ragal a ñëw parce que suñu ñëwee am na ñoo xam ne boo leen ñaanee rek seen yaram dafa seen deret dafa leen jege dañuy maye léegi soo may waaw léegi soo mayee lépp dootoo mën a jënd il faut gars yi xool nuñ ko nuñ nuñ ma lijjantee. kon tamit yaa loolu ba léegi ba cette fois ci tamit lu la nga waxoon nga waxaat. la ma waxoon laay waxaat nañ ma ci jàppale. géwél gu ba ku nit ku baax nga doon sama nawle surtout man sama xarit yi may fréquenté nañ ma jàppale. géwél boo bu ñëw bu mënee jënd na jënd suñ la joxee micro nag man soo ma wayaanee su ma paree dinaa la may mais bugguma ñuy wayaan ñi fay ñëw di jënd si parce que loolu day yàq événement bi. day dem ba rey sunu événement sunu foire nit ñi dañuy bëgg a ñëw mais dañuy ragal su fekkee dangay ñëw géwél topp la ba sa oto wala wayaankat bi topp la ba sa oto day ñaaw comme ñoom ñoo ma ko mën a defaral du dëgg dama leen di ñaan rek ngir yàlla war a suuli man seen jabar laa géwél laa comme ñoom waaw buñ ne taas mbaq mën a kindring d'accord euh, ci ci biir li nga xamante ni moom moo di foire yi dafay am ay coow parfois dabaay ak coow parce que parfois dañuy wax ne que dabaay coow yu bëri ci Sénégal nag loxo ma ngi ci dafa nekk ci suuf rek di wax sa diggante ak. léegi ban coow. na leer du danga maa teg diggante ak ak coow lan la. ban coow. foire bi parfois day day am coow. ban coow foire nga fi dégg. nekkoo fi woon am fi foire léegi ñu ñu andi la keneen koo xamante ni dafaa nekk bu ngeen nekk fa en même temps. ñu loolu du coow. su fekkee man damay def foire loolu sant yàlla la wax naa ko ci sama benn euh, édition ma ne su fekkee man damay def benn affaire nga bàyyi ba ma jàpp dat <coughs> nga jàpp dat avant man ça veut que man li may def baax na loolu tamit duma ko bañal nit de ñoom dañ ciy sukkandiku pour am buzz. est-ce que ah mais su fekkee da ngaa bàyyi ba da bàyyi jàpp datam nga ñëw fi muy defee même endroit nga jàpp fa dat une week avant loolu lan lay niru. ah waaw kon kon bëgg a jaay ñoom tam ñu a kon comme concurrence la nañ ca dem day neex concurrence mooy neexal yëf ndax benn nit kase mënul nekk ci àdduna moom mooy def lii kase ñoom bu ñu ñëwee concurrence ma man dañ may yokk sawarte ndax bu ma doon def benn damay def dix instant bi na affiche yi jolli ndax man sama bos day génn suba bu soobee yàlla waaw ah, waaw bu dara yomb ma saf alors euh, tollu ñu aussi jàpp ne ndax buzz jar na ko artistes yi génn tey créer buzz boo xamante ne ak xaritam ne dama danga ma ëmbal c'est avant ñu maa takk ma am ak yow doom mu doon polémique boo xamante ne ñu bëri dañ leen ci critiquer naka nga gisee genre euh, bad buzz yooyu nga xamante ne euh, dangay jaral nit pour tour wala coow ci genre yu mel noonu. Euh, Amina waaye ko seetaanu ko ba mu jeex mais le problème en man duma ma gaaw a gëm man sama problème mooy bokkuma nit ñi maayin man lu ma gis ci internet bi duma ko gëm. bu fekkee loolu bat buzz la. jaru ko parce que ñun suñu niveau tolloogul foofu du ñu ay américaine du ñu ay nigérien comprendre nga. donc ñun fi ñu toll mooy créer suñu bopp buzz comme yii ñuy def xam nga yu sew sewaan yi mais bat buzz yooyu moom. tollooguñ ba pare c'est c'est quelque chose boo xam ne dalay lay topp. Mm-hmm. tey jii say doom mën nañ nga am say sët. kenn du comprendre ñu naan dëgg la woon du dëgg et ça comprendre nga parce que fii histoire dafa daan bindi bàyyi mais fim mu toll nii ay video ngay teg bàyyi tey yow nga wax loolu amul fenn foo koy contre contredire ëllëg mën nañoo jàpp ni dëgg la fiw te loolu moo lay topp. sax ñu ngi koy dégg mu naan li nga ne ni moom moo di sëy mi yëngu na mënatul jot tubaab beeg yu mel noonu bu fekkee ni bë kii bës moo ko. kii ndaw si man liiruma affaire bi ba mu jeex parce que dama cee dugg cliquer xool ñuy wax loolu rek intéressé wu ma ma avancé mais franchement pour man jaru ko. bu dee bë bat bës la bu dee du dëgg. jaru ko. Ah, xaw ma day théâtre xaw ma day ci xaw ma lu munti def jaru ko. lu mu ci mënti am jaru ko boog man demaa ma part personnelle waaw bad buzz mën nga koo am fii ci réew mi mais pas yenn bat buzz yu metti yi parce que ñun bat buzz yi tax ñu naan bat buzz dëgg sax mënuñu ko parce que xale yi euh, bu dee Amérique dangay gis ku futteeku ba set ñu foto ko ay photo fuité genre yooyu ñoom loolu la ñuy defee bat buzz mais ñun fii loolu xam nga doxu fi boo ko fi defee gars dañ lay ŋàññi kon donc am na loo xam ne dara jaru ko ci àddina mhm. waa c'est saa ko alors xam naa sax dañuy tëj mais tamit nga dikk sa diggante ak soxna Aïda Saliou bu Cheikh Béthio parce que dañu gis ci koor gi nga defar sa ay pañe di leen ko tuddee te tamit di leen ko envoyé sa diggante ak ñoom. waaw jërëjëf ci question boobu ndax loolu naroon naa tëj sax nar ko fàtte soxna Aïda dama koy gërëm dafa nekk nit ku baax donc damay def foire euh, mu ñëw jàpp ci jëndal presque 17 personnes billets. ñu ñëw fekk ma Abidjan jënd estandam fay yëkkati dooleem joxe ndékki añ reer kon kooku amuloo fayam dama koy sant bu baax cuun di ñaanal yàlla mu yàggal ko fi musuma ko gis mais ku ko sopp musuma ko gis musuñu déggante it waaw xawma ko wax bi bari bari yëpp sax numéro téléphone musuma gis musuma ko dégg ay ñu lañ am mu nekk nit ku baax nag ñëpp bëgg ko mais mosuma ko gis mosuma ko dégg dama koy sant di ko gërëm cuun maam baam bi yàgg fi te wér waaw waaw dem dukkat ba mu neex def samay façon mu ñàkk bëgg naa ñu tëjee ak moom ci digganteem ak ki nga xamante ni moo di borom këram ndax euh, sénégalais gis nañ seen complicité bi nga xamante ne moom ngeen di dund waaye aussi ñu laaj la ndax sëy ak artiste yomb na lii yombul yomb na si boo maturé yombul ci boo maturul parce que tey bu fekkee amoo benn expérience doo mën a toog ak ñoom parce que koo xam ne day dem ba sept mu ñëw xale mënu koo muñ koo xam ne day day am soirée léegi ñu woo ko léegi nii nii nii wala suba ñu ne dangay tukki suba suba suba defaral sa bagage nga dem def fa une semaine am na euh, boo amul yenn expérience yi ci àdduna doo ko mën a muñ donc yomb na tamit ci benn côté boo xam ne boo nekkee yaay faal comme man te am ci lu ma jàpp loo xam ne dafa ma ëppal priorité que yenn détail donc côté boobu daal lay sante sunu borom moom it mu doon bàyyi faal ñu am complicité dañuy xuloo léegi juboo léegi comme couple yëpp waaye ñoo jubóole sunu bopp dépassé nañ sax ñu teg ñu di ñu taaj lu ma amee lu ma naqari man ak moom ñoo koy réglé ñu lijjën ko à notre pare nañ si mais loolu il faut une maturité boo xamante ne yow ko jigéen ki ak ku góor ki yëpp di ngeen ko am parce que kii bu amee kee dese dina métti xawoon na métti nag au début parce que nga fekk nit mu benn affaire mu ci yëngu nga di ko cautionné di ko wax defal nii jaaral nii duggal fii pour mu mu gën a mat ci li muy def donc du yomb moom tamit pareillement ci man parce que man li may def tamit ma ko bëgg moom li muy def daf ko bëgg donc c'est pas facile c'est pas facile jusqu'à présent def nañ presque sept ans dugg ci huit ans de mariage mais c'est pas facile waaw c'est pas facile non non non man pas jalouse parce que aw ma jot bi bañu ma ko bëgg naa fiir de mais jotul euh, fiiraange parce que li nekk sama bopp moo bari ba nga xamante ne su ma tëddee maa ngi calculer su ma un plus donc du ma am du ma am bëgg naa ko mais aw ma jot bi jotu fiiraange bi du ma xool téléphone du ma ko lijjanti parce que nag waxat dëgg soo amee temps rek mooy ñi ñi fiir dëgg mooy ñi am jot. defuñu daara seen live toog di topp nit ki te boo gestoo da ngay gis ndax góor ñëpp yam yem sama bos bosu keneen laaj yemale. je parle en haute voix góor ñëpp a ku gestu gis man nag yàlla damaa dimbali damaa mat-mat goo xamante ne xooluma yendur ma damaa sëy sëyu dof rek toog. kon mais parce que xol yi bokkuñu. man xam nga sëy naa déjà avant moom am naa ci expérience bi may doog a sëy ak ki ma njëkkoon sëyal dafa metti woon dama daan fiir di mer di ko topp ci boîte yi di nangam mais après nag bi ma toogee xalaat ma ne lii du àdduna bi ma sëyaatee nag ah dama ne ah fii daal boo bëggee réussir sa sëy faa nga muñ. kon li ñu naan xale yi mënuñoo sëy sëyaat lañ mën daal kon expérience. dëgg la dëgg la sëy neexul sëyaat a neex ah waaw waaw. boo defee première sëy surtout nga nekk xale man bi may sama première sëy xale laa léegi doo am expérience yéen nii dangay fiir di fët fëti di mer yooyu yëpp dama ko teg ci suuf te xam ne jëmul kër góor ñi boo leen mer guwaat ngay amee wala feebar bu bon bi nañ ci yàlla musal waaw mm. ah. <laughs> <laughs> <laughs> su fekkee am nga loo xam ne bëgg nga ko jàllale rek te laajuñu la ko nga ñëw ci. xanaa di sant rek bu baax di sant sama waajur bu jigéen moom mu fi yàlla bàyyi di ñaanal sama papa mi fi jóge yàlla yërëm ko te xaare ko àjjana ak mbooleem jullit bu mu fa fekk ak ku ko fa fekk. di ñaan senegal di leen wax ni eh, nañu jóg ñu liggéey ñun ñëpp réew mi Macky Sall nekk fi ka Jomaay nekk fi yépp benn la. Sénégal ñun ñoo ko moom ñun ñoo ko mën a neexal ñun jeunesse bi certes que kii day fare fee kee faree fee mais teewul bu ñu paree dañuy ànd nañ ko rafetal ba mu rafet ndax àdduna amul solo du dëgg di leen woo nag ci kaay ma jaay la di leen wax daw si leen gaaw ngeen ñëw inscrire balaa yëf yee xat waaw je vous remercie ñun dañ ci gis suñu bopp bu baax a baax. Ah, waaw waaw ni xool bi pare bii paa yéen a gën a gis seen bopp nag waaw. merci beaucoup kontaan naa fa jërëjëf alors Daba ñu lay gërëm bu baax a baax di gërëm mbokk internet yi nga xamante ni boobu ba léegi ñoo ñu toppoon ci Dakar ba Dakar plus ak <laughs> Sénégal bu 221. voilà di gërëm également ñi nga xamante ñoom ñoo nekkoon ci caméra bi di Ibrahima ak ki nga xamante ne moom moo di Maam Ali yàlla sama confrère bi macha allah moom tamit. voilà di jox mbokk internet yu dig daje ci beneen émission incha allah merci.